tudd éducation mystique tout nañ fi construction de soi tout nañ fi pureté au jour le jour maintenant rek yii yëpp bu nan la nit di nattee fal la féete entre pureté et légèreté. c'est très simple bo togué yo kot yëg ni wéet nga boobu sànku nga. boo toogee yëg ni wéet nga booba sanku nga ndax yàlla ko mu am nga sore ci moom du la bàyyi nga wéet mukk gis nag c'est vrai du looy tëb tëb rek sentir ko ba mu jeex waaye xam nga mës nañ ci waxtaan te mooy xam nga nit ki tey ji nga xëy ne diw nàmm naa ko gëj naa koo dégg

delu ci batu nangul sa bop bi mo wax sank fek ya nga bëgg ne façon bi lay wax ak man foog mu le cëpp sama kanam ne ma diw na nga def est-ce que liggéey nga ko sa diggante ak mom fofu la nit ki wara ñëkke té moy droit ni ko gor gi jàngale won nit bala ngay revendiquer droit matalal sa devoir pare bala ngay topoto yalla waxal ak man ni wala est-ce que la war sa diggante ak mom def nga ko c'est que dafa am un minimum boo xam ne il faut que nit ki sonnee ko ba pare balaa di tal ay pureté ak leneen ndax yooyu yeneen étape ci ci cadre boobu dafa am ñuy laaj ci ni ñu composante yi nekk ci nit comme ñaari baat yi ñu tudd pureté ak légèreté mais est-ce que mën nañu jël ruux féetale ko pureté jël nafs féetale ko légèreté man de bi laa gisoon contraire bi laa gisoon lan moo tax boo seetloo ak jikkoom seetlu nafs ak jikkoom kan moo ci gën a jege li ko yàlla di doye li tax mu wax ko ruux dëgg la ci tendance mo gëna mëna pousser nit vers pureté wayé ci doxalin mo gëna mëna exagérer progression bi te moy roh mu génné nit ci cadre nité daf ko yom roh mu génné nit ci cadre nitéem daf ko yom té yalla nité ko yor nafs li muy doy waar doy waar lan la mooy fonctionner loo yaram secret yi ci yàlla denc mu sauvegarder ko fekk nit ki parewul pour jot ci sonnul li mu war a sonn ci boppam pour jot ci yooyu moom mun na ko na ko garder bu du tëb tëb rek mën yenn yi dëgg la bëri na ay caaxaanam waaye mënul dugal nit ci lu ñu ki tànnal ba pare relativité bi du duggaat kon ban moo ci kawe bakken kenn du ko not danga koy yar bakken kenn du ko not danga koy yar ndax li nga xam ni moom la ci yàlla denc muy outil yoo xam ne wër nga ko jëfandikoo ci mission ba mu la doyee ci yaram boobu la ko def jël benn bi tuddee ko nafs ne ko am téyel nafs nekkaale test bo xamné ci lañuy naté en fait patience ak xam-xamu nit parce que ni yar ni yalla jëlé xel jox nit jël ruh jox jox nit noonu la jël yaram jox koko kon nak toppatoo war ci am xalaat war na ci am gëstu war na ci am c'est très important motax bakken boko yaré mu ànd ak ruh ñu def équipe niko gor gui indé couple la ruh dem ci yonent bi nu ma bëggoon nga gisal ma malikal mulk mu ni ko ndax lan mu ni ko gis nga sama soxna bi nafs mii bu baax la sax waaye dafa am ñaari xarit yu mu nekkal yu nga xam ni fekk muy nekk ak ñoom dara du marché am na benn xaritam bu tudd nafsa xayawaaniya ak beneen xaritam bu tudd nafsa nabatiya te tolloowul ak ñoom personnalité tolloowul ak ñoom dignité te damay gis léeg-léeg mu am yu may digal ma yëg ni ñoom ñoo koy influencé moo tax wu ma ubarrewu nafsi sama jabar daal am na ci lu nga xam ni mënatuma wax ba mu jeex ndax inna nafsa la amaratu bisu man ko kon foog nga waxal ma borom bi mu dimbali ma ci affaire boobu bi ci des itam mooy chefu opposition bi def di ko garaaw ruuxay wax ak yonent bi de chefu opposition bi def ndekete chefu opposition bi ndeke allié rebelle bi la te mooy alhawa هو موي شيف اوبوزيسيون بي مون كو داف ديكو غراو با نوبي اليما يي مو نيكال كين ييسو لين تي نيوم لاي يابال نيوي دام كي سما جبار ديكو انفلوينس اليما يي موي الشهوات تا خمغا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب هم قالوا لبي ونفي ها ذلك متاع الحياة الدنيا تكم يلا نفي لنك والله عنده حسن الماء ف... نفس دادي أبي لا تربي ديسان دادي خلص نبرم نكو يا أيتها النفس وارجعي إلى ربك راضية مرضية waaye fadxuli fi ibaadi waay waaye wadxuli jannati waay ndeysaan ndongo ñi commencé di wadd ndax ni yàlla wax rek moom ni ko bu ma sañoon choix bi ma def ci yow ak yéene bi ma am ci yow bu ma sañoon nga def jom boo xam ne boo dellusee ci man nag ma am fierté te bu boobaa nga xam ni maa gën ci yow jëkkër dinaa la teral ba nga gëlëm kon nag sagal ma san mu jooy mu jooy moom it daldi jël këyitam bind ca moom itam ni bu ngeen demee ni sunu borom na ma pare sama appartement ci aljanna sama joma yegg ci duma ko trahir kon nag rabbib ni li indaka baytan fil janna ونجني من فرعون وعمله تمي الهوى ونجني من القوم الظالمين تمي الشهوات ومسلجي نيوم ركنك دنا دف جم بسما الجنه جوجوك سما ابارتمان ما ميريتكو كوبل نك بوغي بوغي دك سي خولو نخ دي نخرال كي مي دوني دم فين موتا يفوك نيو نيهو kii ne kaay man am naa lii mën naa la ko jox nga defal ma lii kii ne d'accord man bu ma indee lii mën naa la si tegal nangam waaye yow it foog nga defal ma nàngam noonu lu couple bi di dem di demee di neexoo di neexoo di neexoo ba am na fu yàlla mën a suturaalee nit ba ñaari nekk benn ruux dootul réeroo ak bakken yaram dootul dootul réeroo ak li yàlla yéene ci ci nit ki faut équilibre am il faut que ruux ñew ak intention d'avancement neuf si ñëw ak légèreté régulatrice pour dox bi mëna and ndax nit do doxé ben tank bo boo doxee benn tànk ah bala yag de nga àgg il faut ñaari mëna doxando ruux teg ci table bi li mu war a teg ci table bi nafs teg ci table bi li mu war a teg ci table bi ànd bi mën a nekk ku si nekk nag léegi ubbi ci sa moroom li fa yàlla dencoon ruux secret yi nafs dencoon mën ci jot defar ko ba nga xam ne nag léegi bu ko nit ki jëfandikoo mu mën ko jëriñ te bañ ko dugal ci caaxaan waye nafsoo aussi, di fatali roox ne lo na il faut ñu respecter ko te moy équilibre bobu du top rek euh, pureté bi wala bok jëmale nit ki kanam ba jëmale ko fudul wàllam gis nga nak danger bi ci diggante ñaari extrême yi la nek fan mooy fi nga xam ne daf lay génnee ci cadre nité ak fan mooy fi nga xam ni daf lay suufeel ba mu ëpp te mooy sàggane sa bopp bi ñu wax sànq